président conseil départemental nuyu le maire de la ville nuyu le maire Lamine Diallo le maire Aliou Sow jël kàddu aussi man ci turu maire commune Thiès Est Papa Sirou di nuyu aussi adjoint maire yëpp yi fi teew di nuyu nos forces de sécurité la gendarmerie ak la police di nuyu conseils municipaux yëpp di nuyu ODECAV di nuyu également la société civile mais di nuyu personnellement les secrétaires municipaux ñi nga xam ni sans ñoom liggéey bi dara du dox mais di beral nuyoo aussi la fanfare parce que yàlla dogal na manifestation bu ñu am danañu disponible di ñu ko defaral ba mu rafet ah solos daje bi tey li ko sabab yëpp mooy booloo nekk benn je pense que le président de la République moo njëkkoon wax ni na ñi jiite institution yi di daje ci préfecture yi chaque premier lundi du mois pour mu nekk occasion si ñoom ñuy waxtaanaale les problèmes du département séance tenante ku nekk xam li ci sa warugar nga koy def bi loolu amee aussi ñun maire Thiès yi ñu ne ñoom aussi bëgg nañ di daje régulièrement di waxtaan ci problème mu waa Thiès ci gërëm aussi le maire de la ville Talla la mais aussi di sant euh, Pape Bassirou Diop parce que bi ñu émettre idée bi ñoom maire yi dañu waxoon ni comme moom mooy seen mag nañu ko jox mu jiite moo tax ñu njëkk a daje bi mais bi ma si waxtaanee moom mu ne li ko ci metti mooy li mu ko dul fekke ndax bëggoon na ko fekkee pour wane engagement am ak cofeelam ci lépp loo xam ni dafay boole ay dafay defar mais quand mu ne ñu comme yéen a ngi fi nangeen ko matale bu ma ñëw donc ñu ko ciy gërëm di wax ni aussi ci gën a am solo ci daje boobu mooy tey bu ñu jógee si li dinañ joxe subvention. benn ASC bu nekk cees ASC jàmm gën sunu commune la nekk nag waaye fa muy dem du fa toogal waa cees est rek région de cees yëpp la fay la toogal donc da doon jaadu ci kaw daje yu mel nii même bu ko institution yi waxul maire bu nekk dugal ci loxoom ñu ne na Aliou soo def 1 million 500 Lamine Diallo def 1 million 500 Talla Sylla def 1 million 500. Bassirou Diop def 1 million 500 muy 6 millions ñu jox équipe bu mag bi 4 millions jox équipe bu ndaw bi 2 millions parce que mbooloo mooy doole. bi ci des aussi ci wàllu liggéey bi ñun jàpp nañ ni euh, champ de course di hippodrome Ndioma Codou ñun la féete mais hippodrome national la bu ko commune Thiès Est defaree waa Sénégal yëpp la ko defar donc dafay jaadu bu ñuy engagé ay chantier yu mel noonu. waa ouest dugal ci seen loxo waa nord dugal ci seen loxo ville dugal ci loxoom mais loolu pour mu mën a nekk il faut daje waxtaan di am puisque ci at deux bi ñu génn de la décentralisation maire commune d'arrondissement yi dañ daan nekk membre bureau municipal ville di xam la ñu fay nas ak la ñuy def tey ci acte trois bi loolu amul benn maire fii du Lamine Diallo Aliou Sow qui membre du bureau municipal de la ville donc ñoom bu ñu waxtaanee ak le maire de la ville mu ne dañu leen créer beneen kuréel bu parallèle pour di ci mën a waxtaane di yëkkati di def loolu njëriñ waa Thiès yëpp donc loolu moo tax ñun ñëpp ñu saluer di wax ni aussi euh, bi ñuy def dévolution bi am amoon nañ problème par exemple au niveau de la gare routière de Thiès xam nga cees benn gare la ñu ne bu ñu ko joxee Aliou Sow rek xëy na matuwaay ba ciy am pour mu regle tous les problèmes de la gare routière budget ko àttan waxtaan yu mel nii te gaar ba kenn du ne waa Ouest ñoo fay duggee ñi dëkk noor dañ fay dugg ñi dëkk est dañ fay duggee ak ñi dëkk ouest donc bu fay engage ay ay chantier dafay jaadu maire yëpp dugal ci seen loxoom parce que affaire waa Thiès la je pense que c'est ça le sens de ce fason nous faisons aujourd'hui alors bi ci des mooy xëy na daje bi mooy fësal ñëpp que ni maire dañuy ànd parce que Lamine Diallo mës naa ko dégg mu ne li ko gënal mooy toujours ñu koy gis mu taxaw ci wetu si la donc ku wax loolu am na am na engagement ak donc pas-pas ci lu jëm ci waa Thiès ànd donc loolu la ñuy wax ni moo sabab daje bi di ñaan yàlla yàlla may leen kàttan ba ñu mottali ko au bénéfice exclusivement des Thiessois ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi nag comme taxawaay bi day yàgg dañuy dugg ci salle bi danañ fas yéene jébbal subvention bi ASC jàmm gën maire aussi am na aide bu mu joxoon jigéen ñi les conseillers pour ñu euh, mën ci organiser benn activité de renforcement de capacité danañu aussi dimbali correspondance Sud FM bi nga xam ne dafay dem Ziguinchor pour couvrir événement yi te ñoom ñu ñaanoon ñu dimbali leen ci gàttal tey loolu moo doon daje bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan ñu àgg si biir kàddu yu nuyoo rek la di nuyuwaat kilifa yi fi teew yëpp di leen wax ne li sabab daje bi euh, sama rak sama xarit bi Cheikh Ahmed Tidiane Lo di premier adjoint bu maire est te tey nekk maire par intérim maanaam li doon sole wax bi yëpp wax donc dama ci jaaral ci leen xanaa ñaan rek suñu boroom kàttanal ñu ba daje yi nga xam ne dañ leen daan def te njëlbeen bi ngir mutualisation bi nga xam ne moom lañu ñu général des collectivités locales sas mu d'accord ñu ñaan suñu borom mu may ñu di ko la xëy na rythme bañ ko doon defee mën na diis mais dinañ waxtaan ba déggoo ci euh, régularité wu daje yi bu ko defee ñuy man di daje di waxtaan di déggoo ci li nga xam ne moom la ñu waa Thiès dénk euh, delluwaat sant ñëpp gërëm ñëpp tey sàkku ñaan nag ci imam yi fi nekk ak kilifa yi fi nekk yëpp euh, ngir lii nga xamante ni moom lañu ñu mébét mooy doxal li ñu sant muy santaane waa ñaan googu man ñu téyel waaw ndax xëy na ñun mën nanoo téye suñu boor sunu borom téye bu bu ñu bàyyee mu téye beneen boor mën nanoo toqi ñun waaye yàlla ñu téyel euh, te def ci ñun loo xam ne saa yu jafe it du tee ñu trouver ci suñu bopp ay ressources yoo xamante ne dinañu doy pour pousse kenn ku ci nekk mu jëm ci moromam ba yaatal bi mën a am ba wàccees Thiès mën a xam ne seen ndaw yiñ doon dégg nañu dëgg-dëgg ne ay ndaw lañu te fas nañu yéene continuer di dox doxu surga yàlla na ko suñu borom defal ñun ñëpp euh, te lépp loo xamante ni dafay ñuul wala luy mën a yàq mu dinu ko dàqal je que loolu moo doon solo wax bi ah, delluwaat gërëm suñu wayjur bi di Souleymane Kanté xam nga nii waaw defe naa ne mooy magu jataay bi euh, te lépp lu ñuy def nag vraiment suñu wootee rek mu mu jóg euh, yenn saa yi day xaw a diis si ñun sax day xaw a diis si ñun waaye xam nañu ne daf ñuy soññ chaque fois ma nettali ko li sëñ Mounirou Sarr doon wax te Tiwaawan dafa ni ki yendu ci kër gi ba ñibbi jot su fa toogatee di defar ay làmp daa xalaat ñenn rafanaan ndax ki yenn ci kër gi bay waaj nit moom du fanaan ci kër gi làmb bu tàkk bu tàkku la yemal waaye ñoom nag euh, nanu doxale won nañ ñu bu wér a wér ñi ngi xalaat ñu nar a fanaan ñoom itam ñu leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal seen njaboot di ko ñaanal waa Thiès kaay yëpp vraiment di dellu di euh, gërëm le maire Pape Bassirou Diop bi nga xam ne tey moo ñu dalal fii ci Thiès Est euh, ñu am yaakaar ci lu ñu tàmbaliwaate Est nag ndax le soleil se lève Euh, ci ouest ba la ñuy mujjee ji parce que fa la ñuy dalloo waaye il ne faut jamais perdre le kon Thiès ci kanam jërëjëf.